لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين بوكي جلتي نونجي عندك يندي سنتي الله jotaay bu tedd bi bu sell bi bu barkeel bi dana ko yàlla nangu te barkeel di sant yàlla ci ñetti domaine yoo xam ni kàddu yu gàtt lay doon incha allah bu njëkk bi mooy mbokk gi euh, mbokk yi dawlu woon bi alxaaji amat jigéen ak kàdduk imaam kàddu délégué de quartier bégloo nañu ci bokk gi Jokal sunu sët la maanaam sëtaatu sëtaatu moom El Hadj Rawane la radiyallahu taala anhu ndax comme Sarr Dieye mi ko meññ ak Awa Dieye mi moo meññ El ñu bokk benn baay kooku sunu mbokk ci wàll googu te xam ngeen moom El fa mu tegoon waa Njéyeen ñoo ko meññ ci wàllu ndeyam waaye ñoo ko jàngal alxuraanet looloo tam muy cër bu rëy boo xam ni ñoom seen cër rawatina ay way juróom seen taxawaay ci dundal loolu ba nga xam ni euh, ku bokk ci wàllu komsaar la ngay riire ci bokk gi dina néew looloo tam ñoo koy sant yàlla ci biir cant googu ci lay dugal alxaji ahmed njegen bi xam ni yàlla dogal na mu mën ñu fi wuutu maak abdu ñun ñun ñëpp euh, abdoot maa koy jottali ay néew tul xaadir ngoom xam ni daara jàkk tënk ak njabootam ñëw nañ fi njaboot ñëw nañu wàccee nañu kaamil dafay looloo tam ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax kàddu gi nag di kadduug xalifa mam ala jorawaan xaaj Ousmane Ngom mii maamam te woon na ma léegi bi ma tolloo ci bi ñuy jàng alquran ji euh, fa tabarkala moom itam ñaan gi délégué de quartier sàkku moom jiitu na ca faf loolu mooy kàddu bokk gi ñu kontaan lool di kontaan itamit ci li ngeen wax ci moom noonoot la ñuy dundeek bokk gi Jokal li ñu xam ci moom mooy ku disponible la alalam mi ngi koy def ci biir bokk gi ko loolu nag yombul lool te mi ngi koy def kon ñoo ciy gërëm te di ko si ñaanal yàlla ñaareelu cant gi mooy uh, yàlla boole gi mu leen boole ak moom ndax léeg doomu aadama dem ci quartier dëkk fa yàgg fa lool sax waaye du tee mu wéet waaye moom bu ñu ñëwee yëg nañu nu wéetul boo amee sa mbokk nag dem fekk ko ci barabam yek ni ci walu jukku wetul ci wàllu dëkkandoo wetul war nga santat sa borom lolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ak kaddu yi nga xamni yekati ngeen ko ci fa tabarakallah ak khatma yu rafet yi nga xamni imam sis ak euh, mbokk mi doon jangal legi khatma yu rafet tabarakallah yu yaakaaru yalla na yàlla lepp ñi telu kaddu gi nak moy li nga xamni délégué le quartier insiste na ci sank té moy bi nga xam ni mooy jàngale jàngale dafa am solo trop euh, Montinde bu dajewul bu ñu dajewul woon nii ngir sant yàlla kilifa yi fi daje waa koñ bi bokk yi xarit yi bokki militaires yi nga xam ni seen amical bi ñoom ñoo nekk nii toog ñi nga xam ni dañoo nekk Thiès dañoo waxoon ni ñun ñooy ñëw représenter ñeneen ñi nekk ci yeneen région yi ci turu président bi colonel njaay ak ci turu imam Mamadou Sall ca Kaolack ñoom lañuy jotal seeni kàddu ci seen tur ñu ngi lay nuyu sëñ Jokkel di nuyu seen njaboot. <laughs> maam laaj maa ngi woon nuyu yeggale nuyu <laughs> waaw waaw su ko defee kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla lépp lu ñu fi def ci <coughs> teewaay bi déjà. Yalla nañ ko yalla defal aw yiw te yalla bu ko defé yiw dal nako yalla yàlla dotti ci place bi dotti ko ci njabot gi dotti ko ci sunu jëm ak gi ak yépp ja jaay ndax lii nu fi jàng waxuma place bi waye ëpp na aduna su ko defé kon dañ ñaan yalla yalla na yalla nangul li nu war moy ñaan yalla nangun nangul yalla na yàlla nangu la yonti bo xone adwa adwaawu mu'min moy sunu cër ci mbir mi kon def nan ko yalla nako yalla nangul ginaaw lolou Euh, imaam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara encore di leen joxaat seen wàccuwaay di ñaan yàlla yàlla na ngeen a teewee ay ati ati at lu mel nii ndax alhamdulilahi rabbil alamin ci ngeen ci dëkk bi sakk ngeen ci dëkk bi teyit ndëgër laay ngeen ci dëkk bi ndax euh, koo xam ne kii bu waxee dootul jëmmam bu jëfee dootul jëmmam kooku na nga ko ñaanal yàlla rek mu tegu fi ngeen tegu yàlla na ko fi yàlla saxal mbooloo mi salaamaaleykum euh, parents d'élèves communauté éducative Thiès maa ngi leen nuyu di leen de di leen gërëm maa ngi tudd Seydou inspecteur de l'éducation et de la formation nekk à la retraite nekkoon inspecteur départemental tant temps est passé maa ngi jël la retraite ñëw fii nag ci école bi di liggéey fii ci école bi ak euh, ki ñuy wax monsieur Sey Diogel Sey ki nga xam ni moo créé école bi dénk mako école bi nak école bo xamni mo ngi door commencer commencé commencer commencé première année la am première année nak xam ngeen ni kuy door mom toujours ay jafé jafé ngay am mais yalla baxna na na jafé jafé du démarrage mais lepp yalla def na ci suturu ba ñu commencé année scolaire bi ci jam égalé ko ci jam ba am ay résultats yu bax parce que ren candidat ñu jëloon présenté au BFM yëpp ñëpp réussir 100 pour la ñu am bu ñu xoolee tamit yeneen élèves yi yeneen classes yi ñëpp passer. te du du bi ñuy passé aussi dañu respecter normes yi nga xam le ministère de l'éducation waxoon donc li ñu doon bëgg ci école bi mu nekk école de qualité école référence ñu ngi ci tànk yooyu yaakaar nañu ne nag meilleur bi mu ngi ca kanam ca kanam lay gëna neex euh école bi nag mu ngi am benn mandarga rek boo xam ni war nañ ko ràññee bu baax parce que bu ñu waxee les futurs leaders mooy ñiy jiitu ëllëg ñiy jiitu ëllëg xam nga loolu rek dafa dafa dafa indi formation nga tàggat xale bi nga tàggat ko bu baax a baax non seulement war na am xam-xam mais aussi war na am yar ñun dañuy jiital ñaari conditions yooyu fii du jàng rek mais da ngay jàng tamit ñu yaraale la

Euh, déclarant responsable je voulais dire déclarant bi bu ko neexoon day dem wuti mais dafa ñëw ne man dama bëgg duggal sama loxo ci njàng parce que moom nee na am naa ci wàll damay bëgg jàppale xale yi Sénégal pour seen njàng baax ma ne loolu de ambition boobu lu ko gën a noble amul moo tax man ma ànd ak moom tamit ci yoon bobu am tamit ñu am ku ñu jappalé xam nga li ñuy wax toujours à côté d'un grand homme il y a une grande femme alors la franchement ñu ngi aussi njukkal euh, madame Sey ki nga xam ne directeur général moom mi nga xam ni guddi ak bëccëg mu ngi ñuy accompagner ji ñu di ñu tey tey lépp loo xam ne ñoom du taxaw incha école bi ci tànk yu baax la nekk et ci tànk yu baax tamit lay doxee yaakaar nañ ni ëllëg résultat yu baax nañ la ñuy am.

corps professoral bi war a leen euh, nominer féliciter leen gërëm leen sant leen primer leen ci bravoure bi ñu am ba école bi toll fi mu toll élèves yi xam ne nii ñëw nekk nañ fi ma prime leen aussi tamit encourager leen pour ñu gën a am effort mën nangoo jàng école bi nag li ma ci jublu mooy LFL 100 pour 100 LFL 100 pour cent c'est-à-dire que dama bëgg chaque année ma am 100 pour cent bu dee BFEM ma am 100 cent bu dee BAC ma am 100 pour cent loolu laa ci loolu laa jublu te loolu laay waxtaan ak professeurs yi parce que ñoom seen seen branche la seen wàll la xam la dama bëgg ñu jël consacré seen lépp ci école bi ba nga xam ne ni élèves yi dinañ nangoo jàng jàng ñu xamal élèves yi élèves yi mën a réussir moo tax ma am yaakaaru waxtaan ak suma borom diis ko ne ko man 100 pour cent laa bëgg tudd école bi li ñu teg li ñu teg ak administration ba corps bi yaakaar naa ne euh, école bi dina mën a dem kanam parce que man ak sama soxna ku na silla ñoo taxawal école bi bi ñu ko taxawalee gis nañu ñu ci jàpp ci njàngalekat yi léegi ma jël décision ne ko dama bëgg bu ñu seet benn capitaliste di ko jox action muy bokk ci école bi nañ seet professeurs yi nga xam ne ni ak administration yi nga xam ne ni ñu xarañ lañu ñu nangoo jàngale ñu jàngale lañu ma jël décision ne duma woo benn financier muy ñëw di jënd action ci école bi parce que début ba léegi man ak sama jabar ñoo ko financé ba de bout en bout léegi dama ne professeurs yi fi jàngale tam amuru école amul amuru jàngale laay jox ay action gratuitement suivant leurs compétences avec leur dévouement ak les ñuy jàngalee dama leen di jox action duñ ci jënd un franc duñ ko ci jënd xam ah, la parce que dama bëgg école bi jëm canal. dama bëgg école bi jur yeneen école yeneen école cause pour laquelle corps professoral bi laay jël def actionnaire de bokk ci école bi loolu mooy sama yéene mooy sama ñaan loolu de tuddee école bi LFL 100 pour cent te yàlla nañ ko yàlla defal kii nag sama xarit la sama rakk la sama xarit la muy Omar Diaw hôpital régional la nekk fa lay liggéeyee maa ko buggal sama xol parce que dañu dañu niroo jikko dañu niroo jikko maanaam moom cause pour laquelle moo tax ma bugg ko taf ko sama bopp def ko sama rakk yéene ko lu bari ni ma yéenee lu bari te yéen yooyu suñu yéen yooyu dina ànd parce que jubóo nañ ci lépp maanaam moom fu ma jaaxle ma ko wooyee mu taxaw ku feebar ma la demal seeti Omar Diaw nga dem seeti ko mu faj la toppatoo la bàyyi liggéeyam dem toppatoo la. xam la jaamukatu yàlla bu mag la moo tax ma def ko moo tax ma def ko sama bras droit kii moom su bu ñëwee ne dama damay dama bëgg bokk il sera le bienvenu parce que xam naa ne su ma neex mën naa tukki ba France toog fa jàpp sama njàmbur su ma bàyyi affaire bi ci loxoom dina ko gérer normalement parce que ñoo ñoo bokk jikko li ma koy euh, ñaanal rek mooy école bi yàlla def fi jàmm lim ci séentu ci lim baax ci lim wax ci mbaax yi mu bëgg am école def ko am ko yalla yalla nako yalla def ni fi liguey tam gis sen bop parce que aussi au juste euh, c' est une c'est une entreprise et une entreprise quand tu crées une entreprise au juste da nga bëgg mu dox da nga bëgg mo may bénéfice ñëpp jëriñu si mais xamna ni mom bam koy def du pour bopam parce que aujourd'hui bu nee tay les professeurs de bëgg ñu nekk ci actionnaire ça veut dire que mom bëgg ne ku nek am ci dara ci école bi te bu xalaatun bopam rek loolu bu ko ci fekk dafay téye école am ku ñëw jàngale mu fay la nga dem soo yoon donc bëgg ku ne ñam ci moo tax bi mu koy créé ba léegi sa départ ba ba léegi chaque jour mu woo ni ma kaay bokk man nga bokkuma bés bu ne man nga tey ma ñëw gannaaw suba dinaa ñëw yenn saa yi man nga bokkuma te jii mi ngi naan la man heure bu ma ñëwee bu ma bëggee bokk bokk cest yàlla ko bind noonu dafa baax chaque jour mu indil ma nit hôpital waa koñ bi nii su ma doon recensé yi mu fi ñëpp kon xam naa koñ bi yëpp ku feebar ci koñ mu indi la ku feebar am na ñoo xam bokk la ñoom dara xamuleen sax ci yàlla ak yonent bi xoolal ku feebar mun woom ni ma ayu kon yàllaa ko bindoo yàlla ko yàlla fay xolam bu ko yàlla fay xolam école bi dina dox parce parce que xol bu baax la yore man na ko yàlla fay yàlla def ci jàmm yàlla yokk école bi te ñu koy feete at mu nekk ñuy feete nii te candidat gën a bare école bi gën a bare élève yàlla na si yàlla def jàmm macha allah.